ñu nag jeexalee ak euh, Aïssatou Diop Fall moom nag nee na Ayib dafe nit ku ñàkk fayda la parce que yim nangu moom pour moom jaaduwul nit di ko nangu ñu dem déglu kàddu yu mu yëkkati jëmale ko ci Ayib. Ayib Daffé yi mooy dañoo ñëw ne xaaral jël ñàkk fayda jël ñàkk fulla def ko yoon pour siiw loolu Ayib Daffé mii def. Hmm. mooy dafa toog kalima te moo ne de ko meññ papaam. def lu rëy ci digg réew mi muy Balla saa defee wax dëgg yàlla ma xam ko baax moom mii am na ay rakkam yoo xam ne euh, xam naa leen bu baax a baax ñu xam ma tam bu baax a baax a baax hmm. kon moom fi mu bokk fu baax la bokk te papaam bokk na ci tarixu politique Sénégal waaye nag dëgg dëgg ayib dafa mii ku war a xoolaat boobu ndax ñu koy jay xam nga Sénégal dañu lay jay hmm. yaa fi toj gis naa ñu koy kii ci ci internet bi tonton ayib jógal ñu demal ñàkk loo ko fayda waaye di loo ko mu dem taxaw dégg nga lamba démb romb naa buntu DG ba ba ba tàppanteeg sama rakk jooju ma koy nuyu ngoone saaliwu bu euh, sans limite dégg nga mu ba boo gis ci laa doog seeni nii sa gis en vrai ayib dafe mu tos bu too saba doorom boobu taxaw ci buntu ba ci ci buntu DG yi nag ŋàmm taxaw dégg nga ñàkk tooy xëpp froissé kanam gaa nga ñamaa ñoo ay fonde feeñ si kanam gi mu taxaw foofu ne fa ñamaj taxaw dégg nga te seenoo benn waa Pastef ñi ñi nit ñi ràññee xam leen ci Pastef kenn àndul ko kenn accompagné wu ko gis ma fa kenn ndax ñoom dafa ñu yéen a jàpp leen ñu bàyyi ay ay mi mu bëgg siiw bëgg tuur dégg nga euh, ëpp tuur sax seen candidat ci lu ñàkk fayda lu doyadi lu wayadi loolu nag gis nga nag dëkk nag boo fa nekkee bëgg fa tekki mm-hmm. ak loo fa bëgg a tekkee nanga ko tekki da nga ko tekki fulla ak fayda mm-hmm. ndax fulla ak fayda weesu parti boo xam ne ñaata nit dafa ne yow ku kot yu njël la cëralee la hmm. chaque jour day jaabante DG saa boo xëyee suba bàyyi sa papa bàyyi sa yaay bàyyi sa jabar bàyyi sa doom bàyyi sa lépp dem taxawaalu DG ya ñu toroxal la nga demaat taalal micro yi yow daal cinq minutes de gloire bi ngay am ñu taalal micro gars yi kokkali reetaan commentaire la kokkali ñaawal la dégg nga bu dem ñàkk say bu bëgg dee te jéemu ñoo yónni keneen ku la ci kidul yow wax dëgg fa yàlla na nit nag yaa ful la yaa ko may sa bopp hmm. sa papa ak sa yaay duñu la ko may boo ko amul lee sa bopp mais mais sama kii boo ko xoolee xam ne dëgg-dëgg ayib mii moom Ousmane sonkoo dafa xool bu baax nag Sonko moo mën a casting. Mm-hmm. sonkoo xool ñi mu yor ñëpp ràññeel leen xool bu baax a baax a baax. Mm-hmm. daañu ne ayib mi moo am kanam gu ñàkk fayal boo xam ne kii kii mën naa ko yónni mu doxal ma la saal buloo mënoo taxaw nii na xam mu tax gis nga xool dem na sax ba yu weex mel na man ci jaabate gi muy jaabal saa bu xëy suba dem DG ya bu demee DG ñu dàq ko toroxal ko Aïcha jërëjëf euh, Modou Diouf euh, Alaaji euh, c'est que Aïssatou dafa wax lu ma neex ci début bi mu ne famille papaam nit ku baax la ñu am fulla lañ am fayda lañ parfois ma toog dégg la fii benn jour nga ne Ayib nag fonk na li muy def fonk liggéeyam parce que du fulla jooju ko papaam yaree moo tax tey jii nii liggéey bi mu jox ko àqam ba Aïssatou après di tudd mbirum ku ñàkk fayda ci boppam. waa xam dafa am yoo xam ni bu yàlla defee yow. amoo ko doo ko xam doo xam valeur bi ba defe ne bu ko nit ki ñàkkee. nan la war a mel non damay expliquer ah, rek. ayib dafe ah. damay expliquer lan mooy fulla lan ah, mooy fayda. lan mooy fayda. Mhm. fayda mooy d'abord bokk na ci buñ la joxee dara dañ naan la faydaal ko maanaam buñ la joxee liggéey da nga ci am yitte de ci am fayda. na nga ci am fulla na nga ci am fayda xam nga loolu mooy lan hmm. mooy maanaam ki nga xam ne liñ ko jox da ci wane ba nit ñi yëg ni liñ ko jox de sàgganewu ko loolu mooy fayda ay bu ko defutoon la ñuy wax ne ah biñ ko ko joxee daf koo ñàkkal fayda moo taxit dara sottiwu ci liñ ko jox hmm. maanaam bu fekkonte ni tey dañ koy xaar demut dañ koy kii demut parce que loolu lañ ko bëggoon mu bañ koo fay daal mais ayib dafa xam liñ ko jox mu jox ko fayda léegi nag ay satu mi li muy expliqué daf ne dafa ñàkk fayda ayib bi muy dem lambar lambar yi wut rek dem xam nga lambar lambar yi loolu mooy danger loolu mooy wax joo xam ni waxu ko daanu ci sareet la maanaam boo comprendre wut yëf yi c'est dafa war a expliquer yëf yi ni mu demee <coughs> ayib dafa dem ak décision de justice mm-hmm. kon ña doon àtte liñ doon àtte amul fu la bu fekkee ne am na fulla ak fayda. kon warul yem ci ayib kese. kon warta wax ayib kese. Mhm. ayib dañ ko jox décision de justice ayib bu njëkk bi dafa njëkk a dem ñu ne ko nekku leen ci list yi bés boobu defe naa ci lañ yëg ni Ousmane Sonko ndekete binduñu ko ba gaa yi attaqué mbir mi mhm. justice yóbbu ko Casamance. ba ñu demee Casamance gis saba si fay àtte ñu jox ko dëgg ay xëy wutali ak décision de justice dem ca DGE pour ñu jox ko li nga xamante ni bi mooy ay mbiram ba mu yorut kayit ga ñëwut waaye ba mu yoree kayit ga lay soog a ñëw mm-hmm. kooku ku am fayda ci li muy def la ba mu ñëwee ñu at ñëw ña nga xam ni ñoo ko doon kii di ko làqatu léegi ki ñëw jàkkaarloog yow yow ngay làqatu fan la fayda nekk ak fan la ful la ne. Oh, fan la ne. <laughs> ngeen di dem di ko làqatu di bañ mu dugg mu dem Sénat. Hmm. Sénat ne nañ leen jox seen fiche de parrainage nañ leen jox seen fiche de parrainage. ñu xëy dàq waa Sénat yëpp. ñu ne décision bi faaw mu dem Cour suprême parce que lii ak lii. ñu dem cour ayib toogaat ñu dem cour suprême cour suprême yóbbu leen ca tribunal ndakaaru ñu demaat juge ba àttewaat joxaat ko këyit ayib ñëwaat ñu wut ay policier teg lànk ne du dugg bu fekkoon ne lu ñàkk fay da lay def defe naa ni danañ doxaleeg moom neneen waaye dafa yor këyit guy firndeel ne dañ koo war a jox liñ ko war a jox ab ayib ku am fulla la ku am fayda la ndax nag ki wax ne daf koo ñàkk ndax xam na ku ko am ni mu war a mel waaw parce que am na loo xamante ni pour nga xam lan mooy fullaak lan mooy fayda pour nga xam ko dafa war a fekk nga xàmmee ko ràññeetle ko est-ce que yow boo ko ràññewul li nga xam ni mooy fullaak fayda mm. parce que fayda dafa am solo ma jigéen te ayib li mu ne ñëpp dañu xam ne dafa am fayda ci li mu ne. wax na ko na ay waajuram ak i parents am. waaw doon daf ko tàgg ayib nag wàccut yoon woowu. moom moo war xool wan yoon la ne. mais ayib moom mi ngi ci yoonu fulla ak fayda li muy def ku ko ciy xas ku nekkoon xamoo fulla ak fayda. déedéet que képp ku ne ayib dafa ñàkk fayda xamoo lan mooy fayda. defe naa ni bu fekkente ne bii ku xam fayda nga. di nga ne ah Ayib Daffé de ku am. fayda ci li muy def hmm? nee na kenn gungewu ko. waaw waaw non non soxlawut kenn di ko gunge xam nga kaa ñu ànd sax day indi loolu bu day indi bu nit ñi ñëw nga doo dem loolu da ngay ñàkkal fayda yëf yi maanaam yëf yi dafa war a nekk ci yow ngëm-ngëm nga jox ko yitte jox ko fulaak fayda ku ñëw fekk la ca hmm. soxlawut ñëpp di dem di dajaloo yooyu yëpp xeetu pour jaxase la rek daan ne waa Pastef ñëpp ñëw boo nee waa Pastef Ayib mooy Pastef. Hmm. bu demee dafa représenté parti bi du waa Pastef voilà du waa Pastef loolu lañ bëggoon buñ dajale woon tamit ñu sànni leen nga ñu ne parce que warut a demee nii ñu ne waaw parce que ñeneen ña fay ñëw mm. donc en tout cas ay nit ku am fulla la ku am fayda la ci li muy def te sénégalais bu nekk lii bu ko réew mi yëpp nit ñi doon doxee ni muy doxee defe naa ne réew mi dana dem